<laughs> loolu kon lu koy maye jar na ko d'abord kon wala takun li kalamin multafita balsil ila allah laa tasul lahum nadara na nga jëm ci yàlla waaye bul gëstu nit ñi fa in atatka min arrahmani nicmatahu faskur wa kun li ada wal bu'sa mustabira bu xéewalu yàlla ñëwee ci yow ma sàmba kat ni na nga sant